laan bikum tay ci suba si njiitu réew mi Macky Sall fay dem Tiwaawoon lépp xaaju ci wàllu gàmmu gi allah le regard yéene kaay ñu ko xamal visite d'état lay xamal fas yéene waxtaan ak njabootu Sidi Hadj Malick turbine yéene kaay na ko gàmmu Tiwaawoon googu ñetti junney takk der ñoom lañ fa yóbbu ngir kaaraange ga laas yéene kaay moom fa xëy ci ay wàlli yàlla yu mag Sénégal te jokk ci tariqa Cheikh Ahmed Tijane Chérif ah, yaw seetal bokk na ca Baye Niass naka noonu Sidi Hadj Malick ak ñeneen bés bi yéene kaay na ko voilà Baye Niass moomu ngay wax sax ki nekk tey xalifaam Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass wax na ay dëgg yu bëri waxtaan wam séq ak yéene kaay ba lii yéene kaay moom ñëw ak ñun ci histoire Seydi El Hadji Rawane Ngom Vox Populi moom ñëw ak ñun ci histoire Serigne Sidi Ahmed Sy taawu Sidi Hadj Malick ba nga xam ne fa bokkoon te tirailleur sénégalais yi nga xam ne fa ñoo des ca ba ger ba leer leneen lu leer ba yegg nekk ci campagne ndax fa nekk di lancer ay projet yu mag ci réewum Sénégal fay xett boobaale info yéen kaay ñu ko xamal l'observateur na ko waaye gis nga ñoom APR googu réeréew gi doxoon seen diggante fa mel ni léegi tey mu jeex de fa xam ab groupe boo xam ne fa dajeek mboolem responsable benn bokk yaakaar yi APR pour ngir ñëpp ñëw nekk ci ginnaaw Amadou Ba te ay fan yu néew di ngeen ci gis ak coppite Ousmane Noël Dieng responsable APR ca Kaolack ku naan ko moom premier ministre boobu moo war a def loo xam ne fay tax ñëpp nekk benn nekk ci ginnaawam waaye am na yoo xam ne yow seetal Amadou Ba fa ñëw Kaolack ba pare fa daal di zappe far Farba Sarr demut fa waxu toog moom faalewu ko daal ci gàttal Ousmane Noël Diène ak fa ñaawlu li ni mel di sàkku ci PM mu jubbanti njuumte loolu ni mu gën a gaawee ma ngi ko waxee ci l'évidence yéen e kaay lii yéen e kaay ne Mamour Diallo moom door na moom it campagne ba boo ñëpp ñu nekk ci ginnaaw Amadou Ba ngir ñu fal ko premier tour tribune yéen e kaay na ko hey du yomb de Amadou Ba gagné premier tour yow xanaa a dal 2024 bii mooy la daloon PS dem te buñ demee deuxième tour mooy ne APR fa ñuy fori maanaam fa ñàkk nguur gi ab Abdou Ndéna Sall ci laas yéene kaay mel ni ku naan ko li ngeen waxee dëgg de moo tax fay artu gis nga APR parti boo xam ne fa ngaa yor nguur gi bu élection ñëwee parti boobu am ay candidat yu bëri loolu mooy firnde na fa ñu ñàkk nguur ga fa ñuy daanu ki gaa ñi daaneel nag ba tax du mën a bokk ci wote yi mooy Ousmane Sonko ko seetal le quotidien yéen a kaay fa ñoo xamal ne Ousmane Sonko fañ ko sonkorisé maanaam fañ ko rocci génne nañ ko ci liste yi wote yi kayit bii firndeel li ni mel nag ña ko déposé ca mairie bu plateau les ko yéen a na ko ah kayit ba gars yi ci sous préfecture bu plateau fa lañ ko déposé huissier ba fa wër Ousmane Sonko ba sonn ngir jox ko ko gisut ko mu yóbbu ko foofu le ca lañ ko déposé gars fa ñoo wax ne contimence ba ci diggante mook yoon moom rek ci réew mi moo taxaw ne Ousmane Sonko contimence ba dëñagut teg nañ ko loxo sax waaye ñi des yëpp seen xam-xam màcc ci wàllug yoon laa wax Sénégal d'accorduñ ci wax jooju ndax fa ñoo jàpp ne Ousmane Sonko keroog bi ñu ko tegee loxo ci la contumace ba daal di wàcc fañ ko waroon a attewaat kon am na sañ-sañ bokk ci ay wote Ababacar Fall bu Gradec lañ ca wax ma ngi ca biir yéene kaay bi yéene kaay bi di enquête ne waa Pastef yi nag dëgg la fa ñoo bañ ne ñoom amuñ plan B waaye fa mel ni fi mu nii plan B bi mëntuta ñàkk te bo xoolee Guy Marius ni muy wëree ci réew mi ak bitim réew xel fa mën a njort ne mën naa nekk plan B wu Pastef Cheikh Thioro Mbacké député Pastef na hëy mooy suñ candidat xamuñ plan B ak C ci leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy candidat ñi bëgg a bokk ci wote 2024 fa ñoo bëree bëri ba jéggi dayoo yaw seetal Souleymane Ndéné Ndiaye nee na candidat la fay laaj réew mi Vox Populi moo ñu ko xamal critique yéene kaay ne Mimi Touré candidat la fay laaj réew mi point actu yéene kaay la fay laaj réew mi Dakar Presse yéene kaay ne Ibrahima Sall candidat la ne fay laaj réew mi ne waa ñun fu ñu ñii ku jóg rek na candidat la béy di aañ ne am na si ñoo xam ne fa ñoo war a dem jaayi boutique loolu taxawut fa ñoo taxaw ne fa ñuy laaj réew mi waa ñii kon fa ñoo yàpp docteur Abdoul Aziz Mbodj xam-xam màcc ci wàllu yoon mu nekk ca université bu Bambey nekkit maire bu Njeejeen ca Saalum fa wax ne boo gisee ñu bëri di reyante ngir naan candidat la fa ñoo bëgg lu xam bëgg poste buñ leen jox ak yeneen ak yi ni mel la dépêche yéen ne man kay faawaaru fi mu toll ni Sénégal daal ay candidat lañ fa ñuy laaj réew mi daal dafa cee bëri ay xusma ñàpp amee ci askan wi léegi nag fa ñoo bëgg a dem jënd fukki député ak ñett su ko defee ñu mën a bokk ci wote yi yaaw seetal benn candidat bi ab soxna la keneen ki góor la moom moomu sax 2019 bëggoon naa bokk waaye ba mu déposé parrainage am bi fa ñu ko waxoon na matut ñu génnee ko fa xam ñaari député yoo xam ne ci opposition bi ku jégi lañ bokk fa ñoo bëri wax nag tallamañ ja ratatati ñoom ñooñu fi mu toll nii ñoo nekk ay courtier maanaam ñoom ñooy dem ca seen naataango député ya leen wax naan e kaay am xam ne candidat la pare na ngir jox la fukki million ak juróom millions ngir nga paranel ko aay ba tax source a ne député yi nag ñu ngi leen di jënd ni kuy jënd ay xara ki naga ki bëy ca daral ba lañ nekk vingt millions ku nangu ñu jox la mais loolu garaaw la leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne PDS ña ngay ñàkkante seen biir de wote yi des juróomi weer fi mu toll nii xiiroo ngaayoo baa nga mel ni tulleeg màlle direct news ne juróomi weer a des ci wote yi léegi Karim Wade su fekkee ñëwut mooy ne fa nar a war waa PDS yi xaalisu ko tappaleel sàcc lekk ko millions yu bëri ci xaalisu corona bi moom lañ fa xamal point acti yéene kaay moom fa ñoo xamal wàllu plan stratégie nas pexe ngir suqali diiwaanu Kaolack ndangaan ci la président Serigne bu maire ba nekk l'observateur na ko voilà Kaolack ndangaan googu sax niki démb fañ doon ubbi inauguré marché bu bees bu Medina Baye ña ngi ko tuddee nag waaye juru Baye Niass bu jigéen muy maam Assu Jànqa ci teewaayu xalifa ba ak promoteur bi nga xam ne moo tabax marché ba di Mouhamed Ndiaye Rahma ak ña ñu dénk yorinu marché ba yaay Fatou Diagne promogem ak ñetti milliards ya nga xam ne Lok Afrique bu Xaadim Ba dugal nañ ko ca marché Medina Baye ba dénoncé ko ba tey l'observateur ne waajuru ndongo yu bëri nag fa ñoo jaaxle fi mu toll ci ubbite école bi jumtuwaayu élèves yi cher gim cher ak école yi nga xam ne fa ñoo nekk ci ndox mi mbënd mi ak yeneen yi di mel loolu baaxut leneen lu baaxut te ñaaw ba yegg ca lool bés bi yéene kaay moo ñu ko xamal yaaw fa ngay xool fa xam benn waay daal fa bojj jam ray xaritam ba mu faatu ñàkk ba kanam allah ginnaaw bi mu rayee xarit ba nag fa kos almet daal di daw